faslun li ab dog la moom da ci wax fil masxi xalal jabirati wa naxwiha ku amee góom mbaa gaañu gaañu ci yaramam bëgg a jàpp nag baa mu bëgg a sangu farata te foofu bu ko raxasee na mu ko daan raxase ba ko dara dëlut mu andil ko ngaañ nu muy def loolu la ñuy wax ci bunt bi ku am ci yaramam góom wala gaañu gaañu boo xam ne ci njàpp mi mbaa ci cangaay bi bu ko raxasee rek jële ca ngaañ loolu benn xam na ko ci boppam bu wér mbaa ku xam a xam faj moo ko ko wax kon foofee su ko mënee raay rek bàyyi da koy raay rek bàyyi raxas ga wàcc na ko na ko raay rek bàyyi su fekkee ne sax su ko jéemee raxas ba kanam mën a caa des mbaa dana am ak cër ci cër yaramam boo xam ne la mënoon du ko mënati kon masaaka te bañ koo raxas lu war lay doon ndax suñu të xaru suñu të teg boppam lu jaaduwut su fekkee ne nag bu ko raxasee dana métti rek yem ci waaye mën naa muñ méttiit wa te du faat bakkanam du yàq benn cëram kon dañuy sopp rek mu def jàppandal gi ñu ko may ci yoon te bañ koo raxas waaye bu ko raxasee itam dara nekku ca li tax mu andi baatub kat tayamu mi daa waxoon ne ca tiim ba boo xamee ci sa bopp mbaa ko xam faj ne la boo jëfandikoo ndox mi tawat sàngam dalul la woon waaye dana la dal mbaa tawat sàngam daloo na la te dina gën a metti mbaa dana yéex a wér kon mën ngaa tiim loolu nag la bëgg a dellu si itam ci gaañu gaañu bi nekk ci sa yaram bu la wóoree yow ci sa bopp maa ko xam faj wax la ne la sa gaañu gaañu bii de moytu koo raxas ni ngay raxasee cër yu wér boo ko defee rek tawat sàngam dal la woon te dina la dal mbaa tawat sàngam ji nga amee dana gën a metti mbaa dana yéex a wér kon na ngay daal di raay rek foofu ndegam mën nga koo raay te bañ koo raxas daañu wax nag bu fekkee daa méttee métti ba nga xamee ne mënoo koo laal su fekkee mën ngaa jékki-jékki raay gaañu gaañu ba da ngay jékki-jékki raay ko su fekkee ne itam faaw rek nga garabal ko njëkk maanaam faaw nga def ci garab njëkk door koo mën a raay kon nga def ci garab ba noppi door koo raay mel ne su fekkee defoo ci mel mentalatu mbaa suura xëy na ndox solu ji waaye boo ci diwee nag mentalatu mbaa suura ndox du ci solooti nga mën a raay ci kaw garab ga kon nga def noonu su fekkee ne it soo garabalee ba noppi du tax nga mën a masaa ci kaw garab ga ñu seet ba xam boo ko ŋaawee mel ne bandaas ko da nga mën a raay ca kaw bandaas ba am déet bandaas boobu nag mën nga koo def ay yoon yoon ba ba nga koy mën a masaa loolu ni mën nga koo ŋaaw waaye benn bi doyut soo ko doon ŋaaw mbaa bandaas ñaar mbaa ñett tegale mbaa ñeent it waaye soo bàyyee da nga ko mën a masaa kon defal noona li wax nag moom la misaale boo defoon lu mel ni aw këyit wala aw der wala bandaas ci sa kaabaab atte boobu lay amee boo soloon tam kaala wala mbaxana te ragal ne boo ko sumee di masaa bopp bi ngelaw li solu la te kon da nga ci jëlee ngaañ li ñu waxoon léegi da ngay raay rek maanaam masaa rek ci kaw kaala ga wala ci kaw mbaxana ma su fekkee ne nag bopp bi am na ca luy feeñ loo mën a masaa ni ki mbaxana mi dajut bopp bi te fa mbaxana ma ak siwut mën nga koo masaa kon na ngay masaa mbaxana ma ba noppi nag masaa la mbaxana ma muurut ca bopp ba jàppatal googu ñu la may nag ci raay rek te bañ a raxas moom duñu ne bu la jàpp waree dong leen koy may bu la sangu farata waroon nit te am ci sa yaram fu mel noonu rek da nga koy raay te bañ ko raxas may wa indi ko lin duñu sart ne itam bala ngaa mën a raay foofa day fekk nga amee woon ak laab dañuy bañ nga jàpp ne la ñu waxoon ca bot ya ne bot moom bala ngaa mën a masaa ca kaw day fekk ba ngay sol bot ya nga amee woon ak laab sart ci sart yu bari bari fii moom amu ci bu fekkee ba ngay teg bandaas ba mbaa ba ngay def garab ga amee woon ak laab it du ci wàññi dara awin ka sharat jee nag mooy dangaa ŋaaw wala nga bandaas ba ŋaawaale mbaa nga bandaasaale loo xam ne bokkut ci gaañu gaañu ba waaye nag mënees koo ñàkk a ŋaawaale mbaa mënees koo ñàkk a bandaasaale loolu lépp ŋaaw ga nga ŋaaw wala bandaas ga nga bandaas ba boole ci lu ci bokkut du tee dañ la waxoon rek da ngay raay rek bàyyi ndegam loolee nga ŋaawaale mbaa la nga bandaasaale mëntoon a ñàkk biñ lay wax ne la raxasal la nga mën a raxas raay fa nga mënta raxas day fekk rek boo defee noonu du la wàññi dara waaye bu la wóoree ne man nga ko sax raxas fa gaañuwut raay fa gaañ waaye boo ko defee dana am tawat yoo xam ne daw la woon te na la dal mbaa gaañu gaañu ba dana gën a metti lool ba fanal la mbaa dana yéex a wér kon sax da ngay bàyyi lépp rek te far tiim moom daal duñ seet ba xam la wér ci sa yaram ak la ca gaañu lu ci ëpp mbaa ñoo yemoo wala ñu laa wax daal nga raxas la wér raay la gaañu day fekk mu wóor la ne doo ci jële ngaañ waaye boo ci rek amee ngaañ rek bàyyi lépp te dem tiim dañuy wax nag ne ku wànneen moom bu sañ a tiim ngir wànneen wa lu may bu raxasee cëree ci des mu daa koy andil ngaañ waaye bu dul lool rek wànneen moom du ko tey jàpp su fekkee na it mën naa raxas la wér ci yaramam raay la gaañu te du ko wàññi dara waaye nag la wér ci yaramam daa néew lool dañu far jox atte ba la ëpp dañ ko wax ne ko faral tiim rek ndegam li mel ne ab loxoom dong mu amul gaañu gaañu ci yaramam ci dëgg nag mënoon naa raxas loxo ba raay fa ca des waaye gis nga ne loxo kese rek moo wér ci moom kon loolu daal ne wëpp dañ koy wax ne ko faral tiim rek ñu jéggal la nga bañ a jàpp bañ a sangu farata su fekkee ne dafa defoon garab ci fa gaañ ci yaram wa mbaamu bandaas ko nga xam loolu moo wecci raxas cër boobee wala massa cër boobee mu dem na ba julli loolee jekki-jekki dañal boppam wala moo ko dindi ci kaw fàtte mbaa dara dal ci kawam daal loolu dañ day mel ni kon ku doon julli ba ci biir nga fàttaliku ne am na cërub njàpp boo xam ne defoo ko woon julli googu faaw day yàqu su bañee ñàkk njàpp moomu nag day daal di gaaw bu dee garab mu delloo ci garab ga bu dee bandaas mu delloo ca bandaas ba te daal di koy masaawaat bu ko yeexee def ba mu yàgg ci kaw loo xam ne moo ko tey rek lépp yàqu atte ba nga waxoon ci almuwaalaatu moom la bëgg a dellu si moo tax mu ne almuwaalaati bu fekkee ne nag nekkutoon ci julli loolee dañ mbaa mu dindi ko ngir defaat ci geneen garab kon ndegam ndégeekum njàpp maanaam daal def luy to njàpp te bëgguta ñàkk njàppam moomee lu daal di gaaw defaat ca garab ga mbaa defaat ca bandaas ba daal di koy masaawaat mu daal mel ne kon njàppam ma dara sikku ca nga xam ne lii bu ko daloon te fekk boobu amewutut laab moom duñ ko wax dara waaye nag ndegam mi ngeeku laab te lam defoon dañ na mbaa moom dindi na ko na daal di gaaw delloo ko ca daal di koy masaawaat su ko yeexee def rek ci loo xam ne moo ko tey rek bu yàgg mu daal di ñàkk ak laab amatul ak laab te bu ko fekkoon ci julli moom nee na la julli ga yàqu na su fekkee ne yaramam da ca amoon gaañu gaañu boo xam ne bu daa raxas daw ko mën a laal bu daa masaa it daw ko mën a laal kon àtte bi ma wax ko léegi mooy fam gaañu ci yaram wa bu fekkee ne daa àgg ci mënees koo laal kon da koy bàyyi noonu rek bañ koo laal moo xam day tiim moo xam day jàpp moo xam day sangu farata foofee nga xam ne nag mënu ko woon a laal ba da ko daan dékk su demee ba mu wér te fekk mu mu amee woon cangaayu farata na daal di gaaw ragg ko mu mottali cangaayul farata la su fekkee ne ci am njàpp la woon daw ko raxas ba daw ko masa ndax mënu ko woon a laab su yoree te fekk mu yore ak laab fekk mu yorem njàpp na daal di gaaw raxas ko su ko yeesee raxas rek ci ko loo xam ne moo ko tey rek dal nay ñàkk am njàpp la nga waxoon ci julli it noonu la bu doon julli bi ci biir mu yëg ne fa mu daan déeg bañ koo masa bañ koo ragg ci yaramam kat wér na te fekk mu nekk ci julli julli googa yàqu na na daal di gaaw raxas foofee bu dee fu ñu raxas masa ko bu dee fu ñu masa bu bañee ñàkk laabam googee mu yor su fekkee ne nag amiwul ci ngaayul farata benn yoon ci biir gaañu gaañoom boobu njàpp rek la fi daan def di ko déeg bi yoon nag ba muy wér fekkul mu yore am njàpp kon amul dara luñ koy wax ci lu mel noonu bu fekkoon mu yore ak laab rek bañ a ñàkk laab ga rek dañ koy wax ne ko gaawal daal di raxas foofu bu dee fu ñu raxas daal di gaaw masaa ko bu dee fu ñu masaa ndax nga bañ ñàkk sa laab googu rek bu dee cangaay nag moom bu mu fàtte ne ndegam ba muy sangu da koo déggoon ndax mënu ko woon a laal saa yéree rek na daal di gaaw ragg ko ndax loola mooy mottali cangaayul farata loolee loolu mooy àtte bi bu dee lu ñu raxas na gaaw raxas ko bu dee lu ñu masaa na gaaw masaa ko bu doon cangaay moom fépp la ñuy raxas ba mu des bën bëni nopp yi bu doon ci njàpp nag moom la ñuy masaa mooy bopp ba ak nopp ya bu mu fàtte itam ne ndegam masaawutoon bopp bi mbaxana moom sol la masaa woon wala kaala ga la masaa woon ndax bañ sedd bi dugg ko su dee julli ba yàgg kaala ga rot mbaa mbaxana ma rot rek day mel ne ku fàttaliku ne doon na jàpp bàyyi ca farata julli googu yàqu na te daal di gaaw masaa bopp ndegam amatul ngàntul bu ko masaayee mu wàññi ko dara su ngàntu la jeexut nag nga daal di gaaw solaat mbaxana ma mbaa defaat kaala ga daal di koy masaa fa saasa bu ko deful rek daal di ñàkk ak laab ci kaw rek ni nga waxee woon almuwaalaatu sësale ga teqale woon nañu su ko tayee ba mu yàgg ak su fekkee tayu ko dafa fàtte rek teqale boobu leeroon na foofa day yóbbaale su fekkee ne gaañu gaañu ba mënoon na koo laal ba daana ko masaa wala mëntu na masaa jëmm ji waaye da koo bandaasoon mbaa da ko garabal njëkk daa ca masaa kooku itam saa yu demee bu yëg ne wér na léegi rek na daal di gaaw bu dee lu ñuy masaa mu masaa ko bu dee lu ñuy raxas mu daal di gaaw raxas ko ndax léegi kat wér na amatul ngant nga xam ne kon foofa doonoon loo xam ne daa méttee métti ba mënu koo laal da ko daan dégg rek du ko laal benn yoon ak mu doon foo xam ne daana masaa jëmm ja wala muy masaa ci kaw garab ga wala muy masaa ci kaw bandas ba ñoo ci yemoo loo ci xam ne wér na rek bu fekkee mu amee woon cangaayul farata na daal di gaaw raxas foofa ndax mottalee ko cangaayal farata la bu dee nag amiwutoon ci ngaayu farata benn yoon njàpp ma rek la daan def te bu ci àggee benn mu mën koo raay raay ko wala mënu koo na raay mu dégg ko fa bañ koo laal léegi wir na rek na daal di gaaw def la ci war bu ko yeexee def rek dañ ko waxe woon ci almuwàllaatu ndegam moo ko tey tey daal di yàqu am na nag lu boroom muxtasar waxoon boroom almuqaddamatu alxisiya sax wax na ko te moom mi jóg caa àgg mooy am na ci yaramam foo xam ne loxoom mënu koo laal foofu nag dañuy teqale ba xam dafa nekk ci cëri njàpp yi wala dafa nekk ci cëri tiim yi li wutale cëri njàpp ak cëri tiim mooy tiim moom daa weesuwut kanam rek ak ñaari loxo yi tàmbalee baaraam ya ba nga ëmb conc ya tuuti booy masaa jàpp nag moom daa boole bopp bi ak loxo yi ak tànk yi su amee gaañu gaañu ci kanam mbaa ci loxo foo xam ne mënu koo laal loolu la muy tekki mooy su doon jàpp njàpp ma manki bu doon sangu farata cangaayu farata la manki bu doon tiimit tiim ba manki kon dañ koy wax ne ko boo dee jàpp jàppal boo dee sangu farata sangul farata te bàyyi tiim bi ndax tiim moom daa gàtt weesuwul kanam ak loxo te njàpp ak cangaay ñoom dañoo yaatu kon day bàyyi tiim ba te bu ko jàpp waree mu jàpp fa mënta laal mu bañ koo laal bu ko sangu farata waree itam mu sangu farata te fa mënta laal mu bàyyi ko bañ koo laal ndegam ndox mi du ko wàññi dara moom kon na jàpp bu ko jàpp waree bu ko sangu farata waree mu sangu te bàyyi tiim bi ndax lu mën def ci yooyu rek faaw day manqué ndax am na foo xam ne loxoom mënu koo laal ci misaal nag bu amee woon gaañu gaañu ba ca ndëggu la gis nga ne kon fa gaañu ba mënu koo laal nekkul ci kanam nekkul ci loxo nga xam ne kon bu doon tiim moom tiim ba day mat bu doon jàpp nag mbaa muy sangu farata njàpp ma day manqué ca ngaay la faawu manqué ndax foofee nga xam ne mënu koo laal faawu da koy déeg bañ koo laal foofu nag moo am ñeenti wax am nañu ne ndegam moom bu tiim yi day mat te bu jàppoon mbaa mu sangu farata day manqué kon na tiim te bàyyi njàpp mi loolu benn wax la am ñu ne ak lu ma di am moom na jàpp rek muy ñaari wax am ñu ne dañ koy teqale su fekkee ne la gaañu ci yaramam daa bari ba nga xamee ne bu doon jàpp mbaa muy sangu it la muy raxas dana néew kon na far tiim waaye bu fekkoon ne la gaañu ci yaram ba mënu koo laal dafa néew nga xam ne bu doon sangu mbaa muy jàpp lu bare bari dana ko raxas kon bu ko jàpp waree na jàpp bu ko sangu farata waree na sangu waaye bu mu tiim jooju wax moom daa teqale waxu ñeenteel bi nag mooy day boole yaar yëpp bu ko jàpp waree na jàpp ba bàyyi fa mënta laal bu ko sangu farata waree na sangu farata ba bàyyi fa mënta laal bu demee nag ba julli rek a des mu tiim nag tiim bu mat nga xam ne kon day boole laabug ndox gi ak laabug suuf gi